ñàkkum ndox mi moo ko waral mat na 6 mois rawatina si nag weeru koor bii danoon doon ndox mi danoon doon ñëw par tuuti sax ñu ciy soox léegi nag dafa arrêté ci boppam ndox mi dafa arrêté ci boppam daf moo ñëwatul doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg man naa ngi ni sama tension bi dafa yéeg mais i faut ma taxaw ci tali bi ndax ñàkkum ndox mi dafa metti dafa yàgg dafa metti dafa yàgg dafa metti weer ba ndogu jot yow amoo sax loo ndogoo da ngay obligé dem jënd ndox. ah eggalee ko sa sa ndogu di jël si ndoxu Evian yi kireen yi moom ngay jël ah def ko ci butéel yi yii nga def ko ci sa kii boot attaaye loolu dafa metti dafa metti wax rawatina nag sangu bi sangu bi moom kenn waxaalee ko da ngay toog deux jours sax doomu mun a sangu lii metti na yow Macky Sall yow la ñuy waxal ndax yow lañ sànni loon sa carte suñu carte yi yow lañ ko sànni loon ñun dañ laa votel bëgg la ba fii mais nag suñu mbëggeel ci yow mi ngi waaj a jeex waaw parce que ñun dañoo sonn benn tali ñaari tali dañoo sonn ndox mi bu ñëwee rek suñu kaw lay rek réew kum ndox mi bu ñëwee rek ñoo ciy gën a metti dañ dul gis sax ndox dañ dul gis ndox dañ dul gis ndox wut cinquante mille ah quarante mille ñun suñu bos ay quarante mille te di ko fay par force boo ko fayul dañ lay coupé ah. sinon dañuy ñëw dajit sa compteur kon kon di nga ko fay parce que Demba Ndiaye rek ñu ngi relevé am na ko fi romb léegi ñu ñu naan buñ ko jàppee ñun jigéen ñi dañ koy songu mais daf ñu seen dafa daw dem dafa daw dem te bu taxawoon ñun jigéen ñi dañ koy attaqué songu ko parce que dañoo dañoo sonn suñu ñaxtu bi ñuy gis nii dañoo sonn bu ñuy génnee ba taxaw ci naaj bi rek dañoo sonn. weeru koor gi nga wóor ba waxtu bi mënoo am toq ndox waaye nañu dimbali wala ñu xam ne ñuy lii métti na ku ko sa jabar loo def rek li nga xam ne métti na. dafa métti dañoo sonn nag. dëgg la dañoo sonn ñaari sali moom zéro. waaw ndox dara. ndox mooy nit Macky Sall nañu dimbali ñun sonn nañ dégg nga lépp looy def ci àdduna ndox ngay utiliser dégg nga dañoo nekk ci weeru koor di woor àndul ak rëng-rëng wax ji ñuy wax ni sax bu koor gi eggee barke alxuraan yàlla la neex nak sama put baangi wow kongu kongu kongu kongu te loolu ak la ki tëj ndox mi na indi ndox mi nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons de l'eau nous voulons de l'eau nous voulons de l'eau nous voulons de l'eau nous voulons de l'eau eh ndox la ñu bëgg eh ndox la ñu bëgg eh, eh, ndox la ñu bëgg ndox la ñu bëgg eh du ndox la ñu bëgg on est fatigué dañoo sonn ñun jigéen ñi am na lu ñuy rus am na lu ñuy jomb suñu jëkkër yi bu ñu xëyee dañuy dem liggéey balaa ñuy ñëw ni kër yi ñoo koy defar ñoo ngi war a sang xale yi yaa ngi dégg ñoo ngi war a jàpp ñoo ngi war a julli ku nekk xam na ne nag booy tëj nag dimbali ñu ngir yàlla nag ba koor nag nga war ñoo yërëm parce que déjà tëj nañu biir yi woor nañu xiif nañu nga bëgg koo booleeg ay jigéen jëkkër ñi mun kenn mënu leen a téye ndax dépasse si kër yi ñoo koy joxe. mënuñoo téye góor ñi bu guddi jotee ñu dañ dañu bay bëgg a dee bu ñu xëyee 6 heures du fa fas yéenee toog si robinet bi dafa métti. dafa métti gi nga ne nii moom fi mu ne nii moom Sénégal moom fi ne ñaar tali bii moom wóor na yàlla waa mbënd ma sax ñu raw ndax dañoo sonn. ñoo ngi nii suñu tànk yi sangu du sangu du dara suñu kanam yi niin mbat te fu ñu waxee rek jigéen bu dàq rek jigéen temps dàquñu mais dañoo fatigué dañoo fatigué Fuuta tampi waaye ñaatali bentali tampi dañoo sonn dañoo sonn deux heures du ba asamaan set doo tëdd ci kaw lal di nelaw

léegi nag mu nekk ci benn situation boo xam ne dafa métti jigéen ñi dañuy yeewu du ñu am ndox dañ leen di defal ba sonn boo indee benn benn benn benn benn citerne mënul mate gox bi coow lay indi ak problème rek il faut que ñoom ñuy ubbi au moins dañu waxoon bi ñu rencontré ñoom dinañ ubbi au moins entre 7 heures ba 22 heures ñoo ñu am nit ñi mën nag mais boo fekkee nelawoo guddi war a xëy nekk ci say activité dafa métti jigéen nag kenn mënu leen canaliser ndax dañu sonn. il faut que yi ñu situation il faut que nous ñu situation nous su situation, rek ce que nous devons parce que nous maîtriser ñëpp benn ndox pour famille non seulement nous bi hygiène Nous hygiène problème il faut que nous devons pour parce que nous nañoo ak mais nous ñu faire ñoom il faut parce que nous ne ko sax maîtriser ndax ndax bu ñuy root mais la parce que ndox rek la ñuy gis doo gis ku takk masque fee ko doon xool nii tey doo ko gis ñu ñëpp ndax coow rek la waaw kon nag il faut gars yi dimbali ñu tuuti ci situation yi waaw ubbi bu ñu ubbee robinet yi au moins dañu am tuuti bu ñu amaatee dina ñëw.